baytu ban bii bil bastain wa addi awwid alsiqi wa mithla ma wa min wa an bi hantiqi istain dimmandikool bil baa maanaam baaw dana dikk lil istianati katabtu bil qalam su doon sa baaraam yi rek kañ ngay bind lu wut foog nga wut loo dimmandikoo xalima gi moom laa binde mu wolof nag danaa nangamee naa bayee naa gopp bi bindee naa xalima gi rendee naa paaka bi kon baa boobu lil istiaana katabtu bil qalam wa addi na nga jël ga teeg ba zahaba allahu bi nuurihim bu doon zahaba rek du nasab mafoolam mi mukk ah zahaba allahu bi nuurihim maanaa azhabaha aywa awit wecceel ah ah istaraw dalalata bil huda ay iwadahu alsiq taqaleel amsaktu bi zaydin amsaktu zaydan tëyee naa ko ay xabastuhu kenn du dégg ni laal nga yaramam waaye amsaktu bi zaydin soo ci defee baa fokk sa loxo laal na yaramam baa boog lu taq ci moom ni ki da ngaa jàpp ci mbubb ma xëcc ko mooy am saktu bi zaydin baa bi moo tegtale ni al saktu jismi bi jismihi wuteeg am saktu saydan rek kenn du xam noo ko def duñu xam laal nga koom laloo ko wantiqtu dal bil baa misla ma qad daxalu bil kufri wa hum qad xaraju bi ay maa al kufri wa min dana yor maanaam min itam aynan yashrabu biha ibadullahi ay minha du dëgg wa an dana ko yorit fasal bihi xabiran ci suratu furqaan ay fasal anhu intiq biha ci baa misla kulli dalik ala lil istila kii waaw gi mu ci def amu fi def nga waaw googu yow ala lil istila loo yor téere bu la lil istila wa maanaa fii wa an bi an tajawusan ana man qad fatan ala baatu ala bi mu dee xarafu jar luy maanaam lil isticla féete kaw lay tegtale wa alayha wa ala alfulki tuxmaluun jalastu ala sariri dooni jalastu fi sariri wala min sariri ala ngay wax tegtale ni dangaa nekk ci kawam soo duggoon ca ron ga doo wax ala sariri te fekk yaa nga ca ron ga raqitu ala albayt wa maanaa fii dana yor maanaam fii itam ala dana yor maanaam fii wa daxala almadinata ala xiini gaflatin min ahliha ay fii xiini gaflatin wa an ida radiyat alaya banu qushayrin la amrullahi ajabani ridaha ida radiyat radiya an lay jëlgatee foo ko fekk radiallahu anhu wa radu anhu dégg nga maa raditu an dalik maa raditu an bulaan dégg nga radit an kon ala dikk ida radiyat alaya maanaa an ni su ko defee mu dem ci an beneen xaraf ana jublu na man xat fatana kañaw bi an ci baatu an lu mu ci jublu tajawuz tajawuzan ak jàll dara rombale ko dem ni ki ramaytu anil qawsi bal bila sànni mu wàcc fa surtout anil baladi dama dem wàcc ko fa an mu jaawaza lay fi romb ko fa wàcc ko fa dem tabaqa déedéet kooku dikka goo ci waqat taji mawda a baada ma ngoog an dana dikk yor maanaam baada la tarkabunna tabaqan an tabaq xaalan baada xaal wa ala dana yor maanaam ala itam moom an du dëgg wa man yabxal fa innama yabxalu an nafsihi an jooju bi maana ala kama ala mawdia an qad juila ni nga xamee ni an it des na ko def bala palaasu ala ñu remplacé an nekk mawdio ala dégg nga laa ibnu ammika laa afdalta fi xasabin ani wala anta dayyaani fa taxzuuni laa afdalta alayya maanaam dégg nga kama ala mawdi a ni nga xamee ne ala def nañu ko palaasu an ay wa nu dem ci kaaf shabih bi kaafin na nga niralee kaaf loolu cosaanam la kanangam moom tashbih rek moo doon cosaanu kaaf zaydun kal asad wa biha taalilu qad yona wa zaidan li tawkidin warat وقد يعنى من يجبل بها تكاف تعليل فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فاذكروه لهدايتكم لهدايته إياكم كون تعليل نغين كوي تود غير فاتلكو لين كو لهدايتي وورد نيونا موم لام كاف زائدا دي يوك لتوكيد بور فد لينكي ليس كمثله شيء كاف جنينو زائدا لدي معنى ليس مثله shay'un kaaf gi ndax nee ñu du kaafu tashbih laa yasixu jacluhu li jacluhaa li tasbix nee ñu li yàlla yakuna fihi isbaatu mislin lahu taala allahu an dalik ndax soo ne laysa kamithlihi dara melul ni ab kemam moom yàlla ah ñu ni ah yàlla kañ la am kem ba ñu naan kemu yàlla bi dara melul ni moom loolu la ñu ñu ni déet kaaf gi du tasbih zaida la li tawkiid laysa mithlahu rekk la am na ñeneen ñu ni waaye du zaida tasbih la ñu leen yàlla dafa am kem ñu ni déedéet wa innama huwa min yëf min nafyi shay'i bi nafsi laazimihi min nafyi shay'i bi nafyi laazimihi looloo ci seen waxi ni badi la bokk dàq dara loo ko dàqee laazim bëgg a dàq ndax laazim du taqalikoog malzum abadan malzum munta taqalikoog laazimam du dëgg soo bëggee dàq malzum nga dàq laazimam maanaam am na ñu ni noonu la laysa kemu yàlla dara melul ni moom kon yàlla amul kem ndax su amoon kem kem ba am kem de kon yàlla ci boppam ay kem ba su su fekkoon ni da nga ni loolu ma ngi mel ni saydun axoo man laa axan lahu laa axala loolu arab da koy wax diw mooy mbokkum ku amul mbokk de ah moom saxal na ne mbokkom la te mu ni ku amul mbokk ah mbokkum ku amul mbokk ah kooku kay bu saydu doon mbokk kooku am na mbokk saydu am mbokk kon dafa dafa dul mbokk moom saydu mooy mbokkum ku amul mbokk maanaam saydu du mbokk la bëgg a wax mbokk gi lay dàq lay sa kamis li shay'un suñu nee nañu bu ñu deful kaaf gi bu ñu defee kaaf gi muy tashdih laa yalzamu minhu almuhaalu fi xaqihi taala li anna almuraada nafyu mithlihi mutlaqan wa innama huwa min baabi nafyi shay'i bi nafyi laazimihi li annahu law kaana lahu mislun la lazima an yakuna dalika almithlu lay an yakuna mithlun li dalika almithli wa huwa almithlu alawal kem ak kem ku ci ne sa kemu moroom nga su ne diw amul kem kemu diw amul kem maanaam diw kon moo amul kem rek loolu ña wax ni kaaf gi du tasbih loolu ci wàllu arabiya bi rek la yem wastumilas man moom kaaf def nañ ko muy lisim de wa kaza an wa ala an ak ala itam def nañu leen ay lisim ci barab ñu bañatee nekk xaraf min ajli za alayhima min daxala looloo tax min di tabbi ci moom niki wayu arab bi gadat min alayhi baadama tamma dimuha tasillu wa an qaydin bi zayzaa majhali min alayhi gadat xëy na moom picc ma min alayhi jóge ca kawam moom tàgg ma ay min fawqi ala jooju bi maanaa fawq kon min def nañu ko ala kon foofu def nañu ko fa muy lisim looloo tax min mën ci dugg xarafu jar ci lisim lay dugg du dugg ci xaraf ni moom min alayhi ay min fawqihi dégg nga an itam noonu wa laqad araani lirrimaahi dariatan min an yamini taaratan wa amami wa laqad araani maa ngi gis sama bopp ci xare boobu dariatan ma nekk comme fu ñuy jànge njàm dariatu xalqatun yutaallamu fiha ram jaaro bu ñuy def fee di ci jàng jëmeentu fetal jàmp sànni fett lañ daan def bal bi bu ne porox dugg ci biir ñu ne ko ah yow kat jum nga loxo mën ngaa jàpp mooy dariatu nee na ba ba nu nee ca xeex ba maa ngi mel ni dari atu laa ñeel ñeel xeej yi sama noon yi ci man rek la yëpp di jàpp wala qad araani lirrimaahi dariatan min an yamini taaratan wa amaami léeg-léeg benn jóge ci sama ndeyjoor dikk léeg-léeg benn jóge fett yi guntoxi xeej yi dari atun lirrimaah dégg nga walam yanha sawi atatin ka darbi yansaxu minhu waxal àggale ko tantahuuna baytu xamaasa la walan yanha dawi shatatin ka darbi ka taani yastuf yadhabu fihi zeyt walfutulu baytu xamaasa ah atantahuuna ndax da ngeen yem ay noon lay jàjj walan yanha du tere dawi shatatin waroo mi jéggi dayoo ci ci tooñ ka ka ka taani lu mel ni ab jam ja ay mislu taani kaaf googu bi maanaa lisim ka bi maanaa misl aywa niki jam-jamu xeej boo xam ne yadhabu fiihi dana ca sànku zeytu diwlin wal futulu ak mees bu demee lu ñoo moon ci dew ak mees di ko ko faje def ci mees di ko def seen diw yëpp ñu jam-jam bu mel noonu nga xam ne bu borom ñibbee bokkam yi lu ñoo moon ci diw ak kii di ko ko di ko ca def nee na lu moo mën a yam leloo waa ju jéggi dayoo ci mën a tooñ looloo ko mën yemale atantahuuna walan yanha dawi shatatin ka taani yadhabu fihi zeytu walfutulu wa in yajurra fi mudiyin fa kaminhuma wa fi lxuduri maana fistabin wa mud mus ak munzu ñaari xarafi jar yooyu ismaani ñaari lisim la ñuy doon xaytu rafaa fu ñu fu rafaaxee xabar kon ñoom mubtada lañu boo ne maa laqiituhu muz yow maani dañoo rafaa jaruñu amma boo ne muz yow may ni wala munzu yow may ni kooku dafa mel ni da nga ni min yow may ni dëppi ñaari fan kooku xarafu jar la waaye soo ne muz yow maani ñaari istimaal la yu dagan loo ci def arabiya la kon muz bi maanaa muddatu adami ruya yow maani kon muz mubtada la bi maanaa muddatu adami ruyati yow maani la maa raaytuhu muz yow maani al muddatu yow maani mubtada xabar kon muz lisim bu rafaaxee awoliyal fiala wala suñu ko méngalee fial mu laaf fial jum lay fial ni ki jitu ñëw naa muz daa diiru li seyd di ñaan maanaa muddata duaaihi kookoot bon muz lisim la foofu des na benn ndaxam bu fekkoon jumlay lisim lañu ko laafal itam a lisim kilo la lisim la kon waaye nag laafal ko jumlay fi'il ji maanaa jaral jare mu laaf jumlay fi'il kon moo gën a bare nag lu mu laaf jumlay lisim fa ma ziltu abghil maala muz ana yaafi'un walidan wa kahlan xiina shibtu wa amrada kii andi na satar bu njëkk bi ci baytu woowu fa ma ziltu abghil maala abghil xayra la def moom maa ngi xamit ba tey abghil maala benn la muz ana yaafiun li anna al maala yusamma xayran qaala taala kutiba alaykum ida taraka ahadukumul kutiba alaykumul kutiba alaykum ida xadara ahadukumul ida ahada ahadukum ahadakumul mawt in taraka xayran ay maalan kasiran in taraka xayran bind farataal dañ ci yéen alwasiyatu lil walidayn wal aqrabina ci njël beenu lislaam ba asaka wàccagut mana masalay ndono wàccagut xayran jooju Aïcha firee na ko alal ju bare dafa am benn waay bu dikk fi Aïcha di ko wax dama doon diisoog yow ndax dama bëggoon daal saraxe def wasiya batale ci sama alal ji mu ni ko kam maalu ko waaja tudd ko ab adat ci alal mu ni ko mu ni ko innama qaala taala in taraka xayran wa hada qalilun yàlla kat in taraka xayran la waxte lii bariwul bàyyil utrukhu li wala di ko bàyyil ko fu say doom bu ko dénkaane di ko jox yàlla in taraka xayran la wax te lii tuuti la kon xanaa firi na ni xayru mooy almaalul kathir فما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع سيت المذ أنا يافع مبتدا خبر لهم لا اسمان حين رفع أولي الفعل غني أولي الجملة الاسمية وينك لولو دفا نيو فعل لا فرلا لا وإن يجرى سنو جاري بنو نيكي حرف وإن يجرى سنو جاري نيوم نيار في مضيين كي تانك بباسي غني ما لقيته مذ شهر ولا منذ عام kon fahum fahuma ñoom ñaar kamin niki minum libtida la ñu yor ay adamu ruyati gi ma ngi tàmbalee min shahrin wa fil xuduri bu ñu jawee jaree ci tangit lisim ci waxtu teew niki ma raaytuhu muz yawmi hada kon istabin birlul ci ñoom maanaa fii maanaam fii kon da nga mel ni ku ni ma raaytuhu fii yawmi hada soo ne muz yawmi tàng bu teew la waaye boo ne muz shahrin dafa mel ni maanaam min la ñu yor waaye ala kulli xaalin kon xarafu jar lañ wa baada min wa an wa baa in zidama fa lam yacuq an amalin qad ulima wa wa zida yokk nañu ba ma ma danañu ko yokk ci yenn xarafi jar te du tee mu jëf niki baada min ci gannaaw min ngi ni mim min ma te du tee mu jar mim ma xatiatihim majrurur bi min ma ziyadati ma wa an amma qalilin la yusbixunna naadimin wa baa in baa fa bi ma rahmatin baaba yàqul jëf-jëf wa zida ma baada man baada min wa an wa baa in fa lam yàq taxul baaba gàllankoor leen an amalin walis jëf joo xam ne qad ulima xamee soon na ko ci ñoom te mooy jar lisim maama dikk taxut mu gàllankoor leen teewul ñu mën ko def waaye nag wa zida baada rubba wal kaafi fa kaf wasiida yokk nañu maa it baada rubba ñu naan rubba maa wa baadal kaafi ñu naan kama a fa kaffa mu feg leen walis jëf ci li gën a bare misalu rubbama rubbama yawaddu alladina kafaru comme que ja jaratul muy dugg ci jumal yi jumlay lisim yi rubbama yawaddu su naroon a jar doo du dugg ci yawaddu feelu mu daare axun majidun lam yuxzini yawma mashhadin kama sayfu amrin lam taxunhu madaaribu axun majidun mbokk mu tedd lam yuxzini toroxlawu ma yawma mashhadin ci bisu xare ndax njàmbaar yam fa feeñal si gël na ma kama sayfu amrin ni ki nga xamee ni jaasi amar ibnu maadi kariba amru ibnu maadi kariba maanaam batalul arab jaasiyam ja ñu di wax samsaama ni nga xamee ni jaasi amar jàllam taxun hu waru ko madaari boxoo ay cawukaayam léegi sayfu amrin mubtada la kon maa kaaf gi maa fekk na ko ba jëfatulug jar waaye kat waqad talihima wa jarrun lam yukaf moo na day rubba ak ak kaaf léeg-léeg yalihima topp leen mi mu maay zaida wa jarun te mbir moom ak jar lam yu kaf kenn fegu ko teewul mu jar dafa néew nag moo tax mu ni xadd naxwu rubbama darbatin bi sayfin saqilin bayna busra wa taanatin najlaa'i dégg nga wana wa nansuru mawlaana wa naalamu annahu kama nnaasi majrumun alayhi wa jaarimu rubbama darbatin déggoo maami bari na caw guñ gu guñu caw bi sayfin saqilin ci jaasi ju ñaw a ñaw yu ñu xacc mu weex tàll yoo xam ne rubama darbatin bi sayfi saqilin bay na busra bu nekk diggante xe boori busra dëkk la wa taanatin najla ak jam-jamu xeej bu yaatu maanaam xare bu bare na mu tax kii ni wanan suru mawlaana dañuy dimbali sunu doom sunu mbokk jege ñaale kanu méngool wana alamu te du tee noo ngi xam kat ni annahoo ni ki moom kaman naa si moo nit ñeeyam majrumun alayhi ku ñu tooñ la ay tàng wa jaari mun aji tooñ la ay tàng waaye ala kulli xaal noonu dañu koy dimbali rek sunu mbokk dañu koy dimbali te xam na ni moom ñëpp yam dana tooñ des na ko tooñ waaye nag bu dikkee rek dañu koy ji nga jomi arab loolu ni kaman naa si mooy shahid bi maami teewul kaaf gi jar loolu dafa bariwul waaye am na mooy waqad yalihima wa jarrun lam yukaf wa hasifat ruba fa jarrat baada bal wal faa wa baada al waawi shaa zal amal wa hasifat ruba xadaf nañu ruba it fa jarrat te teewul muy jar baada bal ci gannaaw bal rubba daal bu dikkee ci gannaaw bal danañu ko xaraf te bàyyi fa jarga mu defoon bal baladin mil il fi jaaji qatamu laa yushtara kataanuhu wa jahramu bal rubba baladin ñu dindi rubba waaye bàyyi fa jarga mu jaroon wal faa gannaaw waawit faayit dana ko def fa misliki xubla qad qad qad taraqtu wa murdicin fa alhaytuha alzi tamaima muxil ci ibnul qays fa misliki ay fa rubba misliki kon gannaaw bal ak rubba xew na ci mu ne nag wa shaa siiw na nag hadal amal jëf ji fi mu siiwee bare nag mooy baadal waaw bu fekkee ci gannaaw waaw la nag ñu di ko waaw rubba kooku nag moo gën a bare dëgg la fa danañ ko xasaf ci gannaaw bal danañ ko xasaf ci gannaaw faa ni ki misaal yi nu la jox waaye nag mu ngi bare dëgg nag gannaaw waaw walay lin ka mawjil baxri arxaasu doolu dégg nga kooku moom bare na lool ay shawaahidam ci waxu arab mu ne su koo lim yëpp de loolu foofu la bare misaalam wa laylin ka mawjil ay wa rubba laylin ka mawjil bahri mu ni wa shaa siiw na dal amalu jëf jooju mooy dindi xarafu jar wa te bàyyi fa ma jarga nee na siiw na ci rubba mu ñu xasaf gannaaw waaw wa qad yujarru bi siwa rubba la daa xasfin wa baaduhu yura mutarida wa qad yujarru bi siwa rubba mën nañoo jarak weneen xarafu jar wudul rubba la daa xasfin ca bañu ko xasafee bàyyi fa jarga am na de ci gannaaw ludul rubba su ko defee wa baaduhoo lenn ci yooyu sax yuraa des na ko gis mutaridan yaani wa baaduhoo yuraa xayra mutaridin am na ca yidul rubba te ñu xasaf ko bàyyi fa jarge am na ca yo xisa xiyaasu faw su fekkee lu mel na kam juñu jarak ba baala tey aywa nga andi tamyiis ja jar ko bikam dirhamin istarayta thawbak maanaa lu doon cosaan bikam min dirhamin ñu xasaf rubbate bàyyi min bàyyi fa jarga te moom du du dikul ci gannaaw bal maanaa du rubba waaw du rubba moo tax mu ni waqat yu jarru bi siwaar léeg-léeg ñu jarak beneen bu dul rubba te fekk xasaf nañu ko loolu nag yenn ya sax xiyaasu na su fekkoon ni lu mel na bikam dirhamin bi kam min dirhamin toujours mën nga ko wax ci loo dé bor yoo ko déggul fekk min dirhamin a doon cosaan ndekam laafut laaful dirhamin wa baaduhu yura muttaridan bu nekki bu dee majruur bi kam wa baaduha yura gayra muttaridin yenn ya moom xiyaasuwul ndax boo ne yenn ya xiyaasu na rek nu xam ne yenn ya xiyaasuwul ka qawlihi ida qiila ayu nnaasi charru qabilatin ashaarat kulaybin bil akuffi l asaabiu ashaarat ila kulaybin kooku ilaa la loolu na xayru muttarid ida qiila bu ñu ne ayu nnaasi charru qabila ana kan ci nit ñi mooy yées ci qabilay arab kooku day day dafay bëgg a xas kulay bu ko defee ashaarat dal di junji al asaabiu baaraam yi bil akuffi ànd ak tenq ya lépp mooy junj kulay bin maanaam ilaa kulay bin bu ñu ne giir gu yées ci nit ñi rek nee na loxo yi asaabatil asaabiu bil kaf maanaam bil akuffi ànd ak tenq ya day mu baala xaal waxi arab kenn xamul maanaam ashaarat junj na al asaabiu baaraam ya au lieu mu yem ci ñu ni ku yées ci nit ñi ñu ni kee kulay ba déedéet asaabiu baaraam yooyu junj bil akuffi ànd ak tenq bi lépp nii la ñu def kële ñoom seeni wax am ñu ni moom de dafa waroon asaab asharatil akufu bil asaabii ndaxte loolu xalbu la ñooñu dañu ne xalbu la am ñu ni déedéet da ngeen a déggul waaye lii du xalbu lu doon cosaan asaarat dafay junj al akufu tenq yi tenq kaff mooy lii lu mu junje baaraam bi mooy alatoom gi muy junje ñu ne dee wallaay du kon ñu ni kon dafa ko xal bu baa bi ci asaabiu la waroon a dugg dañu waroon ni asaabat asharatil akufu bil asaabi ñu ni dee wallaay maanaam baalaxa bu gën a foor boobu maanaam moo ci ne dafa bëgg ne asaabat junj al asaabiu ni mu ko rafaa waaye au lieu mu yem ca biir akufi dafa ànd ak tenq ba lépp ngir baalaxa ku yées ci nit ñi ñu daal di ni nii tenq xanaa ku lay kon bil baabi bi maanaam maa ashaaratil asaabiu bil akufi maa al akufi al idaafa nuunanta lil iraaba aw tanwiina mimma tudif waxdif ka tuuri siina ba lisim soo ko bëggee laafal la mu yoroon ci tanwin ndegam lisim ju ñu tanwi ki xulaamun wala la muy yoroon ci màndargay liraab moom la jublu ci liraaba ni ki ah zay dégg nga alifu tasniya ak wala waawu jamoog yaaja nee na soo ko dee laaf nee na asil dégg nga ixdif xadafal nuunan nuun goo xam ni te lii moo topp ci liraaba màndarga liraab mooy waaw wala yaay jamu muzakkari salim wala alif wala yaa ci tasniya nuun ga ca topp nee na da nga koy xasaf mi maa tuddiif xulaamaani soo ko laafalee da nga naan jaa a xulaama zaydin mandarga rafaa gi mooy alif nuun ga ca toppoon da nga koy dindi ra'aytu xulaamay zaydin du dëgg wal muqiimi assalaati nuun ga da nga koy dindi moo toppoon ci yaa jooju nga xam ne dégg nga ixdif xasafal nuunan nuun goo xam ne tali alaamata li arab dëgg wala tanwin baat ci xulaamun dindil tanwin ga soo koy laaf nga ne xulaamu zaydin dindi ko mi maa tuddifu ca la ngay laafal misaalam ka tóori sinaa tóorin aw xeer tóoru sinaa xeeru sinaa barab la tóori sinaa mooy baat bu njëkk ba mooy mu daaf ak mu daaf ilay baat bu njëkk ba mooy mi maa tuddifu li ngay laafal mooy mu daaf li ngay laaf jëmee ci mooy mu daaf ilay na nga jëkk xadaf nuun wala nuun gu ta nuunu tasniya gu jamono ko tax di wala tanwin ju amoon na nga ko xadaf ci li ngay nar a laaf bu mu amati yooyu wal muqimina salaati kenn du ko wax xulaamaani zaydin kenn du ko wax dégg nga wajrul jaral athaniya baatu ñaareel ba mudaaf ilayhi daiman jar gi nag wan wi nattale fa yéena fa niyatuhuna taqdir yéena ca min maanaam min ndegam nga xam ni mudaaf ma min jinsil mudaafi ilayhi ca la bokk du dëgg thawbu xazin ay thawbun min xazin aw fii wala nga yéene fii ah ida lam yaslux su fekkee mënu la baax foofa illa daaka lu dul loolu su fekkee fii dong moo fa moo fa mën a baax de nde fii moom kenn du tëb di ko nattale waaye nag day am am barab boo xam ne yaar yu cosaane yi dañ fa dul baax laam moom dañu koy mujje mooy sangu laafi moom moom laafi dëgg-dëgg ndax idaafatu ba mu doon tegtale milk moomeel nanga mi diw loolu laam moomeel la daan tegtale te laam mooy xarafu yi tegtale milk waaye nag kooku dañu koy mujje su fekkee barab boo xam ne laam mënu fa baax ndax du affaireu milk min waru fa baax ndax mudaaf mi bokkul ci jën su mudaaf ilayhi ah kon nag yi nattale fa fii niki bal makrul leyli wan nahaar makrul leyli lu ñu fi nattale ndax makrun li leyli déedéet fa leylu laa makra lahu makrun min al leyli leyli laa laa makru laysa jus an min al leyli kon nag makrun fi leyli moo mën a am nattale moo kon nag mu ne wan aw fii wala nga nattale fii ida lam yaslux su fekkee mënu fa baax illa daaka lu dul loolu ndax xam nga ne fii moom wax dëgg du cosaan ci ndax cosaanu idaafata an yakuuna lil milki wa shibhi wallaama xuza lima siwa siwa zaynik loolu moom du la cox na nga jëlal laam nag ci lu dul yooyu ndax moom mooy cosaan bi waaye foo xam ne laam mënu fa baax wutal min su fa minit mënul baax ah pexe amul kon nattale fa fii niki makru lay wa xusi laama lima siwa zaynika ñeel lu dul yaar yooyu su ko defee laam nag mu daaf ak mu daaf ilayhi wax sus na nga lu lan la laafey jëriñ laafe benn muy xaqiqiya ñu di ko tuddee man maanawiya wala laafe bi du xaqiqiya taxfiifa ko andi ñu di ko wax lafdiya fal idaafatu al maanawiyatu wal idaafatu lafdiyatu yaar la idaafatu lafdiya faidaam mooy taxfiifu lafdi rek wa taxsiinuhu jekki doona idaafatul maanawiya li tax ñu di ko li anna maana al idaafati yarjiu ila taarifi aw taxsiis su fekkee mudaaf mi mudaaf ilayhi mi maarifa la fal idaafatu yufiidu a taarif ni ki xulaamu zeydin ak xulaamu rajuli xulaamu day daal def maani maarifa ndax dafa la maarif kon idaafa maanawi la ndax dafa jëriñ taarif wala mu jëriñ taxsiis ba mu laamee na laafee nakira ni ki xulaamu mraatin taxsiis la taxul xulaa mu mën a doon maarifa ndax nakira rek la laaf waaye nag taxsiis la taxsiis bi maanaa taqlilu l ishtiraak fa yaqrubu min ata fa fa yakunu aqraba min ataarifi mimma lam yudaf jaa rajulun nakira la jaa xulaamun waaye jaa xulaamu mraatin ah du maarifa de waaye nag moo ëpp taxsiis bee maanaam moo gën a néew ñamu ko bokkal xulaamun moom ñëpp la ko bokkal góor a ko moomam jigéen a ko moom xulaamu mraatin nag genn wàllu xilmaan yi génn na ci ku jigéen moom rek la ñu wax loolu mooy taxsiis ay taqlilu lishtiraak yooyu yaar kon maanaa la am na beneen idaafa yooyu maanawiya lañ leen tudde bu dee taarif wala taxsiis amaa idaafa boo xam ne taxfiifu lafzi rek la jëriñ taxfiif woyofal ko rek mu yomba tudd ah ah ni ki xasanul waji ah kooku kon yëgal ni du jariñ lu dul taxfiif kon njariñ la raajiun lil lafdi laa lil maana ñu di ko tudde ila idaafatu lafdiya loolu yëpp am na idaafa bu ci mënul a jariñ dara faf idaafa bu mënul jëriñ taarif mënul jëriñ taxfiif moom la ni wa in yushaabihi l mudaafu yafalu wasfan fa an tankiirihi laa yuzalu كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وإن يشابه su fekkee dafa niroog almudaafu mudaaf mi dafa niroog yafalu maanaa dafa niroog fiilu mudaariu bi añ nga xam ne mën na nekk lil xaal wala lil istiqbaal mu da wasfan fekk muy sifa sifa su fekkee dafa niroog mudaariu ci mën a doon léegi mbal